mu goog euh, dégg nañu ko Léopold lu baax la waaye dafa yéex ba nga xamante ne la ñuy xaar ci wàllu koom ci njaayum xar bi bu ñu ko méngalee ak yeneen at ci day day yées waaw loolu moom faw mu am parce que balaa ñuy rétablir les paramètres li nga xam ne mooy économie sénégalaise bi ak économie malienne parce que de part et d'autre tamit il y eu des des problèmes financiers donc euh, soo gisee tey jii yëkkati nañ ko c'est vrai mun nañ fee indi xar yu bëri mais est-ce que loolu dina tax ñu dabe li nga xam ne ne mooy mois yi ñu toog yoo xam ne ne dañoo tëjoon frontière bi parce que soo gisee tamit Mali xaaw na ci sëngéem mais Sénégal tamit sëngéem na na ci c'est pour te dire ne que que quelque part euh, pays yi nga xam ne ñoo nekk ci CEDEAO daanaka fay day mel ni comme ñoo bokk benn ndee ak baay bu këli suuxi këli mën na ci jëlee tamit yeneen suux mhm. donc ça veut dire ne que tey ji on peut pas s'attendre de prime abord à ce que économie bi jékki-jékki rek mu jël li nga xam ne moo di vitesse de croisière il faudra jouer avec véritablement le temps et puis petit à petit xam naa ñu rétablir les paramètres économiques et sava permettre également euh, Mali ak euh, Sénégal ñu retrouver waat encore le rythme d'antan économiquement et que day fexe sax peuple yi tamit ñu gën a duggante parce que il faut comprendre ni Mali ak Sénégal presque benn la woon il a fallu que rupture bi mu am loo tax loolu am mais en réalité je crois savoir ne que fii peut-être ak un an dinañu rétablir li nga xam ne les paramètres économiques alors Ndeye Dimet foofu euh, léewo ñëw sax euh, retrouver rythme bi ndax dina yomb wala ndax dina gaaw mais ndànk-ndànk rek parce que embargo bi nga xam ne def nañ ko Mali kenn mënu ko comprendre parce que bu ñu sukkandikoo rek ci benn niveau de la CEDEAO mhm. donc loolu dara mënu ko justifier te euh, paradoxe yi dafa bari euh, Sénégal mi ànd ci décision yooyu Sénégal moo lànk bañ ni du appliquer parrainage donc bëri na ay contradiction yoo xam ne plus ñuy dem à l'avenir dinañ comprendre xam lan moo motiver woon exactement ñu tëj Euh, frontières yi nga xam ni tey c'est vrai que Mali am na ci ay jafe-jafe impacté na ci waaye dëkk yi ko wër te Sénégal bokk ci itam ñoom it ñoo ci gën a sooxe ndax boobu ba léegi économistes yi ñi ngi alerté transporteurs yi ñi ngi wax ñi nga xam ne dañu am commerce di dox diggante Mali ak Sénégal ñoom itam souffrir nañ ci bu baax a baax alors aujourd'hui quel était l'intérêt ñu tëj Euh, frontières yi loolu je pense que ni tey jii nii plus euh, fu ñu demee plus plus de plus en plus fii ak 6 mois 7 mois dinañ comprendre que ni pourquoi pas est-ce que nekkul euh, décision politique mhm. décision boo xam ne xoqatal la pression la pour bëgg Mali delluwaat ginnaaw pour junte bi gaaw joxe nguur gi parce que loolu yëpp mën na ko expliquer mën na ko justifier mhm. maintenant nag tout bien qui finit bien pour le moment mën nañu xaar ndànk-ndànk parce que man dama yàggoon gëm ni même bu ñu ubbiwulee frontières yi jaaykat moom mooy doxee noonu foog mu xool nu muy tojee bopp dina xam pour mën a écouler marchandise donc même bu ñu ubbil woon tey frontières yi c'est sur que ni nii jaaykatu xar yi nekk Mali dinañu xool fan la ñu mën a jaar ba dugg Sénégal ngir écouler euh, seen seeni produits mu ngoog ndey di met ñu wutali nag diwaanu ndax foofu foofule eh, ñi nga xamante ne caabi daf leen féete ginnaaw ñu nekk chambre 6 tey dañoo tàmbali ab grève eh, xiifal bu ñu sukkandikoo ci àpp communique bu frapp eh, ñoom ñi li tax ñu def ko mooy kenn ci ñoom ku ñu bokkal kon néeg boobule bu jógee diwaanu Fuuta dafa ñàkk bakkanam foofee tey ci suba ci néeg boo xamante ne gën kaa néew lu tolloog téeméeri doomu aadama ak fukk ak juróom ñoom ñoo fa nekk te juróom kese ci ñoom la ñu jot a atte bu ñu sukkandikoo ba tey ci communiqué bi euh, bu weesoo euh, téyum ndégganiku yu yàgg yi leneen loo xamante ne ndey dimet ñu ngi koy ñaawlu mooy faj euh, bu baaxul boo xamante ne ñoom bu ñu feebaree dañ leen koy defal waaye itam lekk bu baaxul ñu ngi koy ñaawlu waaw xam nga yàgg nañu ko wax ci li am ci biir kaso yi mm-hmm. parce tey autant Euh, ñi ñu fa garde am nañu difficulté mais l' administration pénitentiaire itam ñoom it am nañu ay difficulté parce que boo xoolee ratio bi ñoom ñi ñuy garde benn détenu euh, euh, comment dirais benn benn pénitencier ñaata nit lay garde donc léeg-léeg boo déggee ni évasion sax am na da nga gis léeg-léeg dañuy xeex ak garde yi mhm. léeg-léeg seen bakkan daf ci sax des fois exposé donc autant prisonniers yi am nañ problème mhm. autant aussi l'administration pénitentiaire am na problème yàgg nañu dégg nag ay ministre yu fi jaar depuis Sidiki Kaba am na lu ñu def ci lu jëm ci wàllu kaso yi ndaxte tey am na foo xamante ne ni dañu fa am seen boulangerie bopp di defar seen mburu wax nañ ni itam euh, pension journalière bi par détenu yokk nañ ko mais lu ñu ko yokk doyul mm. parce que tabax nañu prison Sébikotane mais ba tey foofu ñu tabax bu bees bi ñu inauguré dafa am aussi surpeuplement donc nañu tabax kaso yu yaatu que tamit ñu def seen bopp ne c'est pas parce que yow ku tabax kaso da nga fay dugg loolu ay wax la nañu tabax kaso yi sàmm ak ak yelleefu doomu aadama yi détention arbitraire yi bëri na am na ñoo xam ne ñi ngi foofu noonu pendant plusieurs années ñu xam seen sort te ki leen fa teg amul benn preuve boo xamante ne ni teg na ko ci table ji donc yooyu yëpp war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax a baax di gaaw a àtte nit ñi di leen libéré su ko defee ñooñu mën a dellu siwaat seen kër et puis tamit euh, c'est une occasion même pour lancer appel xam nga moom jamono ji dañuy jub tabaski te président la république dafay faral di gracier ngir lay war a suuri ñoom ñi nga xam ne ni ñoom ñooy lijjanti dossier grâce yooyu di ko jox le président de la république mu koy signé nañu xool seen àqulaay taala xool ñi ñu war a génne ak ñi ñu warta génne am na ñoo xamante ne ni mérité nañu am une seconde chance delluwaat ci société bi parce que dañu juumoon mais am na ñoo xam ne seen place nekkul encore une fois ci société bi parce que dañuy gis ni léeg-léeg ñu gracier nit mu génn defaat njombe bu gën a ëpp loolu donc rey benn nit boo xam ne tey mënoon na servir l'humanité donc encore une fois parce que kaawu euh, ki sant Diallo Wuri Diallo mi ngi fi dañ ko gracier woon ci ay faux médicaments donc mu rëcc euh, peut-être attention ñu bari parce que le président de la tamit benn nit la mënoo tiim lu man ay 2000 dossiers di ko étudier benn par benn donc ñi ngay collaborer rek ñooñu nga mën a am yaakaar que ni lay tegal ci table ji lu jaadu la donc encore une fois a baax ñi ñuy bàyyi. Euh, longue détention yi ñu mën ko xeex bokk na ci euh, bracelet électronique yeeg yu ni mel waaye dafa mel ni ba tey euh, mal la boo xamante ne ñoom mënuñu ko faj. longue détention yi foog mu am parce que xam nga pourquoi l'on nous dit nekk que le Sénégal ne dispose que de six cents euh, magistrats donc ça veut dire ne que magistrat bu nekk il peut se retrouver avec un dossier boo xam ne cent cinq dossiers ou deux cents ou trois cents dossiers donc ce qui fait ne que lu ñu war a baral duñ ko mën a baral ba pare ce qui est dangereux un peu au Sénégal mooy c'est que les conditions carcérales sont extrêmement difficiles parce que tamit nit ki quelque que soit li mu mën a def comme jéye wala comme jombe mais il faut lui reconnaître sa dignité parce que doo leen jël nga jël ay cent personnes nga entassé ko ci benn prison ça veut dire ne que c'est extrêmement difficile ci benn salle donc ya y a des gens yoo xam ne ne surtout yoo xam ne ni ils avaient une vie boo xam ne ne ba pas pas aussi dérangée c'est mhm. des gens yoo xam ne ne euh, des des de grands messieurs ñu leew benn jour ñu def benn erreur ñu yóbbu leen prison mais ci condition yooyu ñuy nekkee qu'ils n'ont jamais vécu loolu dina tax sax ñu feebar ba nga xam ne looloo tax ngay gis yenn saa ñu naan ne sempi nañu kii yóbbu ko parce que tout simplement ce sont les conditions carcérales qui ne sont pas euh, opportunes mhm. léegi nag c'est ce qui fait que y a ça pose un véritable problème mais comme tu di également il a des gens yoo xam ne ni qui sont en prison man damay ne chef d'état bi balaa muy mun a di yeewi ñenn yi parce que à chaque fois dañuy confronté ak problème yooyu da ngay gis mu yeewi ñenn ñi ñu dem yàggul ñu delluwaat biir force wala soit ça ñu perpétrer meurtre delluwaat parce que y des gens yoo xam ne ne ils sont dans cette optique déjà pour ñoom dañoo jàpp ne seen àddina noonu lay demee mais y des gens yoo xam ne tamit en prison qui ne méritent pas la prison parce que tout simplement demu ñu leen juger pour ñu leen fay bàyyi yenn saay condition carcérale yi dañ koy guddal di ko guddeel ba finalement nit ki nga xam ne ne tàmmul loolu xamul loolu da cee jëlee feebar donc il faudrait revoir le système carcéral mm-hmm. c'est pas parce que dañoo tabax benn ay prison que ça se passe très bien non mais il faut revoir la chose l'architecture du début jusqu'à la fin ñu xool naka la ñu mun a améliorer parce que tout individu dafa am dignité boppam et dignité boobu il faudrait que ñu restituer ko à l'endroit à toute personne quel que soit nag li nga xam ne ne moom la perpétré mu ngoog euh, Léopold ñu wax nag ci élèves yi nga xamante ne ca lycée bu yoof dañoo yàkkate benn euh, classe euh, yoon mu ngi def liggéeyam ci lu gaaw sax ndax bu ñu sukkandikoo ci éléments yi njëkka a wadd ci l'enquête bi am na élève boo xamante ni moom nee nañu moom moo jiite yëf yi defeere nañu ko am na juróom yoo xamante ne ñu ngi ci garde à vue ca gendarmerie ak gën kaa néew lu tolloog fukk yoo xamante ni ñu ngi leen di wër conseil de discipline bi lëluwaat ndax njëkkoon nañu ko def ci bésu tay bi ci njiitalu professeur bu lycée ba ñu ngi xalaat ci ay daan yoo xamante ne dinañu ko teg ci seen kaw waaye bu ñu sukkandikoo ci eh, jëween bi ñu denk njàng mekk eh, njàngale mi lépp lu fa yàqu waaye juwu ndongo yi nga xamante ne ñoom ñoo ko def ñoom ñoo koy fay ñu ond ci ak Safiatou Bandiaye bum lycée Ousmane Sembène bi ñu saccagé xaajut bay jeex ndax naka mel na ni sanction yi commencé na wadd mu di ay daan yu metti lool sax ndax na Dieye ki nga xamante ne moom la ñu identifié comme ki doon toj dinañ ko defeere ci parquet bi ginnaaw rek bi ñu ko placé en garde à vue ci gendarmerie bu yu nar a ndax nag buñ ko xayma toll nañ fukk ak benn élèves yoo xamante ne ñoom la ñu identifié comme rek ñu bokk ci bande boobu nga xamante ne rek ñoo tojati salle de classe boobu nekk ci lycée bu Yoff ngir feete ndorteelu grande vacances vacances scolaires yi ñenn ci ñoom sax jot nañu daw génn dakaar ngir mën a rëcc li nga xamante ni moo di kaso bi ñu fàttali ni rek lu ne mel amoon na fi daaw ci lycée bu baax ñi waaye bu ren bi nag jàpp nañ ni yëf yi du seddee noonu suñu sukkandikoo ci ministre bi nga xamante ne moo yore lépp lu jëm ci wàllum jàng bi Mamadou Talla xamle na ni bépp élève boo xamante ne identifié nañ la te nga bokk ci yëf yi nañ la sanctionné ci lu tolloo jëf ji nga def mu yokk si di xamle ne lépp loo xamante ne yàqu-yàqu la bu jugee ci li ñu mel waajuru ndongo yi jëf yooyu lay jëf rekk ñoo ko nar a defaraat su weesoo li nga xamante ni moo di enquête bu gendarmerie proviseur bu lycée Ousmane Sembène moom ci boppam convoqué na conseil de discipline ngir rek ñu taxaw rek statuer ci li nga xamante ne moom la ñu nar a teg comme ay daan ci yooyu leen ndongo nga xamante ne ñoo doon tojati seenub classe. mu nga ko yoon mu ngi def liggéeyam am na ñu ñu jot euh, teg loxo waaye itam conseil de discipline école ba ñu jël yeneen daan teg ko ci seen kaw. parce que man dama jàpp ne que c'est la société même mu ñun ñoo phagocyté genre xale yi ni mel. parce que ñu wax ne que ce sont seulement les parents mais c'est la société. soo xoolee de parce que tout tout simplement. je dis ne réew boo gis dafay am ñi nga xam ne ni ñooy ñooy joxe exemple da nga ñooy ñooy exemplaire da nga leen di montrer comme des ñu ñu dañ leen di xool xale yi di leen xool. bëgg a mel ni ñoom dafay tax ñuy gën a mën liggéey day tax ñuy gën a mën a bëgg jàng ak yooyu donc tey soo gisee euh, xale yi di tugg ci salle de classe yi école tëj na ñu jël ay banc di toj ak yenn yi c'est parce que tout simplement man dama jàpp ne am na ci classe boobu ñoo xam ne ni ils sont beaucoup plus âgés peut-être que ñoom ñoo xiirtal ñi nga xam ne ay ndaw lañu. Mm-hmm. ñooñu tamit toppaleen parce que xale tamit euh, cerveau bi dafa matagul pour mu mun a comprendre les enjeux qui se dessinent man jàpp ne que